وقد سحب فالباب العلوم العلا فلا إله إلا الله ويترني moo tax ku lay bantana bamba moo doy kawewul ku gëm sëriñ bamba day gëm làmp foofu di moo tax ma jóg di ko way ngir sopp ka gën a wóor xebet a xeeb sabara des na fa gëm bamba moo lay jëf jaajëfe Seex Ibra Faal yama yaamata way yaay nuurul léegi ne yaa gis leer ke nu gis bu dul ko nag yow dañuy palam tudde mu ba tey Seex Ibra yow fa nga nekk fa bamba ne sori yàllaa leen foofa doomaa sa ña teew ak ña wëy seetlu na yow fa nga ne sëb cër la yaa ko yayoo keneen ku dul yow bu toogoon foofa day xaw a joy diggante sëñ Bamba ak la pomba daa xaw a sew te waa silmaxa doo gis mbir dooma na mooy te gumba dëgg du xamee wëñ bu ñuul ak bu weex maanaam ci diggante sëñ Bamba bi làmp te wëy te dem jëfal yàlla ak yeneen ba bañ di ko fay lu ngeen ci am maanu leen kumaanuwul gisu ay ne may yu ne yamul te sañ-sañam ba ca biir day alal ak a rey Cheikh Ibra Fall ba mu jekkee Bamba xel du fa dem ak xol bu sell te leer mooy yëg moo di lamp ne cëy xal bul sani mun ku lam moom moo ñe mooy mën a yëg may yenu may lamp Fall xanee ngay bu la day te daal bu yàlla di xamat ay jilim ak i doj ak jaam da cay maanu kon maanul te tuub li nga mooy Cheikh Ibra Fall moo di taalub yàlla leer na ba daj kullal bi daa di ba daj addina ren ni moo indi jàmm a bu dul ko nag moom xorom day manqué démb ba tey Cheikh Ibra Fall Lamp Fall xalilu yaa ko gore yaa kawe yaa maandu mootu yàlla sam na ba wéy yàlla ak Mouhamadou ak Seexul Xadiim la xam keneen ku leen mooy ne sëñ mbir lam xam du lu rëy ndax Fall ba ngay digaloo sëñ Bamba démb la woon moo tax ba tey ku la xam sëñ Bamba moo ko ko déy saw melokaan rek a jaaxal góor ñi Fall li nga am kenn mësu koo am ci góor yi yàlla yaay réy may yaay diinu léegi te yaay quraanu Cheikh Ibra moo tax ku lay weddi ngir jullee ki woor kawewul bu kawewoon dana yëg cër ma mbëtt ma mooy cër bi nga am rek a jaaxal góor ñi sa cëre diis Cheikh Ibra yow ku la bañ leeru xolam dafa fay yaay maxruful léegi yaay nuurul jalaali te yaay nuurul xaqiqati yaay nuurul wusuulu ba tey mboolem ku lay weddi mbooleem ku lay weddi ngir sëriñ bu baax ba mu am weddi na ab sëriñam sëriñ si yow la nu roy yaa jiitu góor ñi te yaay baabu rijaali aboo rijaalullaahi xaliilullaahi yaa gën a kay mboolem ku di xutbu mbaa ab xaw su xam na la yow Cheikh Ibra Fall ku la réere yàlla réer na ko dey baabu daliilu siraajullaahi iswatuna baabul muriidiina xallu yàlla yàgg na wéy yaa baabu rahmati yaa baabul hudaa ku la mooy day saf ko mooy yàlla ak yoneen ba fa matara yi Cheikh Ibra Fall yaa di nuurul léegi yaa ma tëggam mbooleem ku lay teggi du tegtal deful ku nu roy yaay tegtalub yàlla foo dëkk mal yàllaa nga fa yow xaliilu léegi sëwtu tekki na wax ji la day yàlla la tegtal habiballahi ahmadana yawit nga tegtal nu kookee yàlla am na sa fay jasaaka yaa xillu Cheikh Ibrahima Fall karaman xayral jasa wal mu naat daare ni nañ la ko fay alhamdulilah gi ndeem Cheikh Ibra noo ko cëroo moom it nu séddoonu nun Baay Faal yi xas na nu xay alhamdulilah yi ndeem lamp ngëneel ba fi woon ñooy doomi pas-pasam di jàmm mu fab dinu may babu dalilu sirajullahi utadana wa dalilu la sifaqa dalilu ya way wal muridu la si faqal muridu kamal fi zikri rabbika wal aalul jalaalu ba bay wal aalul jalaalu ba way wal habibu la si cofeel ga jéggi na xel Cheikh Ibra Fall moo di sàmm yàlla bi fegu ay moo dijj ëkk yi naaxal fiiru rëy ya fi woon ba ñëpp mucc mu weetal sun borom di ko way moo faq xalli wi neexal yoon wi ba mu gën a neex mu ginni góor ñëpp bañ xam yàlla xam ko te way moo indi xéewal yi mbooleem jaam ñi ñoo ngi gërëm jaajëfe Cheikh Ibra faal buur yàlla am na sa fay alhamdulillahi rabban nafi'ani kaman walhamdulillahi sukurullahi dagg na yay ahadu ya ahadu adal ahada yaay kenn kennal borom Tuuba mu jox ko ko doy Cheikh Ibra Fall jërëjëf yàlla nga naa jërëjëf bamba nga naa jërëjëf ku ko waxul dafa joy cey bàyyi Cheikh Fallu Fall fadilu faddala naa Cheikh Fallu saahid nga moo tax kenn du peese sa fay cey bàyyi Cheikh Moustapha Fall yàgg indi njariñ jàpp nga rab bi fi gën ndawal gi daj na ba doy cey bàyyi Cheikh Taala Fall Cheikh kenn du ni mer jàmbaari ji islam ja fayful cey bàyyi Cheikh Talla Fall Cheikh taala kenn du ni mel jàmbaari lislaam je Seyfullahi mbër la mu rëy cey bàyyi Cheikh Abdoulaye Fall sa baay amul ca góor ña fi woon amul ca ñeeg ña di wéy jaaraama bàyyi Serif Hasanu Hosnu Reda bàyyi Serif ku ko dàkkee yàlla bal ba du mooy jaaraama bàyyi Serigne Aliou Fall Mbawara borom ba war faal sa bàyyi lim def ci diina du fay cey bàyyi Cheikh Modou Fall mbendaa di baabu reda Cheikh Modou mbenda sa bàyyi ñeel nañu sant ko dey cey bàyyi Cheikh Mbacke Fall yaay kër bu sedd te féex Cheikh Mbacke Cheikh Ibra Fall sa baay ba a ta mooy jaarama bàyyi Serigne Bassirou Fall bu sara Bassirou Cheikh Ibra Fall sembal na xaw siya way cey bàyyi Cheikh Abdou Sakoor Abdan Sakooran sa baay moo nu soxal ñaari ngimmiñ ngimmiñ lu tàkku du mooy cey bàyyi Cheikh Ngunda sa Saliou Fall karaman borom ngërëm yi ca biir bàyyam ba rekk nu doy jaajëfe Cheikh Ibra Fall Fall yaaya yoo jërëjëf xéewal yu rëy yi nga làmboo wal na fépp ba doy Cheikh Ibra nun ñi ko séddoo nun la yaa nga nu ñoo mosul kenn mosul ba am ca tib yu nu doy ñoo daj ku kenn dajul ñoo gën ku kenn gënul ku ngoy siwul kii nu ngoy léegi mu ne wuy sama nday ñun ngoy nan ci doomi maam sëy na bu njaay ci bu wér ke gétti góor ña ci baatub laa ilaha ba way subhaana rabbika rabbul mul rabbul arsi ak la ca wa sallama baaqi laa soodalawoo wal ali wa sabi fekk jàmm nga am gënu ay subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun ala al mursalina walhamdulillahi rabbil alamin addi Cheikh Ibra Fall